dëgg Maxtaar ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp fépp foo xam ne rek euh, média bi mu ngi fay yegg euh, di wax ne ndaje tey mi li ko waral mooy élection législative yi nga xam ne moom lañ génnee honorable euh, député El Hadj Mohamed Dieng moonoon nañ daje tey santal ko waa commune Fass Cekkeen yëpp ci campagne électorale bi nga xam ne lañ génnee loolu daal moo wax sababoon ndaje mi tey. loolu dana sawar ci tontu ci campagne bi vraiment def nañ ko ci anam bu mucc ayib parce que ñëpp ji engagé wu nañ ñi nga xam ne ñoo waroon dem ci terrain bi yëpp jóg nañ jël seeni matuwaay euh, vraiment maire itam lépp loo xam ne lu aju ci wàllu moyen la def na ko euh, jeunesse bi ak jigéen ñeeg ñëpp engagé wu nañ vraiment euh, def li ñu war a def tout ba dëkk bu nekk taxaw nañ fa jàll message bi ba yàlla def yàlla may ñu ndam ci biir commune Fass seken vraiment ndam lu mucc ayib ñu ciy sant yàlla bu baax a baax euh, di sant itam aussi di gërëm bu baax a baax population Fass Cekkeen yëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina nag jeunesse bi nga xam ne vraiment euh, fu ñu doon dem ñu nag ñoom ñooy ànd ñu yor wàllu sécurité bi taxaw ci temm nag waaw ak responsable yu góor yeeg yu jigéen yëpp ñëpp a engagé wu vraiment ba yàlla def tey ñu am ndam lu mucc ayib ci biir commune Fass Cekkeen waaw loolu nag ñu ciy sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla yàlla def mu jik sunu député honorable El Hadj moom ak ki nga xam ne moom lañ ko booleel muy Fanta Sall te ñu jig waa département Koungheul jig itam aussi également Sénégal yëpp. de vote yi ñun am nañ euh, deux bureaux de vote dans la commune de Fass Thiékène euh, ci biir 22 bureaux de vote yooyu su ma juumul yaakaar naa euh, xëy na 4 bureaux de vote wala 5 daal lañ ci perte mais yi des yëpp gagné nañ ko gagné bu rafet vraiment waaw yi des yëpp gañe nañ ko waaw. encore Euh, vraiment xëyu ndaw yi itam aussi ñu gën ci ñu gën ci appuyer bu baax a baax parce que jeunesse bi vraiment bëgg nañ liggéey mais liggéey bi daal manqué na quoi bëgg nañ ñu gën ci appuyer bu baax a baax voilà. salaamaaleykum département bu Koungheul commune bu Fass Cekkeen ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di leen dalal fii ci Firi Infos di leen jaajëfal seen liggéey bu baax a baax a baax a baax. di ñaan gañe bi ñu gañe yàlla defal ñu ci jàmm. mu jig ñeeg jàmm ndax wax dëgg jigéen ñi département bi am nañ fas-fas am nañ takku ndax liggéey nañ ko liggéey bu mucc ayib te président Macky Sall li mu def juumul ndax bu tànnee alaaji moo tànn fan tànn wax dëgg vraiment li mu def juumut ndax jigéen ñi am nañ yitte am nañ fas-fas te am nañ yéen a liggéey waaw. yi bëri na wax dëgg ndax boo seetee euh, département bi. doléance yi war naa bëri ndax lu demee ni yoon manquant bi bëri na lu demee ni courant jafe-jafe la fii si département bi li defee ni bëri bu fajukaay yi wax dëgg am na waaye manquant bi bëri na waaw loolu de lañ ci am lu ñuy jàngal loo xam ne loo xam ne nii euh, wax dëgg jafe-jafe la ci jigéen ñi te ndaw yitam aussi ñu ngi tàllal Macky Sall loxo mu jëmale ndaw yi kanam ndax ndaw yi bëgg nañu liggéey waaye seen liggéey des na waaw. benn financement bëgg nañu ay financement yu baax ndax wax dëgg bëgg nañu seen finance jigéen ñi ndax jigéen ñi Sénégal ku leen xam-xam leen ci liggéey bu baax waaye seen financement moom manqué bëgg nañ mu da leen financé normalement wax dëgg su jàll loolu jàllee wéy ñu ngi sant commune Fass Cekkeen tout ndax tey lii buy am yàlla ak ñoom la ndax depuis campagne bi tàmbali ba tey. yendaluñ fanaanaluñ ñu ngi ci liggéey bi du waree surtout ndaw yi ñu ngi sant ñëpp da gërëm ñëpp da balwaaq ñëpp ndax taw bi métti na coono bi bëri na waaye jànkuwante nañ yëpp ba yàlla sottal yëpp bon ñu ngi sant commune bi tout di leen jaajëfal bu baax merci. ndaw yi takku nañ taxaw nañ ñoo jigéen ñi fas yéene jàppalante moom liñ koy dolli bu demee assemblée na jàppale ndaw yi jàppale jigéen ñi vraiment gis nañ seen taxawaay bu baax. ndax lii bu koy am ndaw yi ñoo tax. waaw asalaamaaleykum waa Firi Info ñu ngi nuyu waa département bu Koungheul yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp waaye particulièrement ñu ngi nuyu waa commune Fass Cekkeen bi nga xamante ni fa lañ bokk te élection yi itam wax dëgg fa yàlla ñu bokkoon ci ña fa nekkoon doon déroulé campagne bi kon ñu ngi sant waa commune Fass Cekkeen yëpp yëpp bàyyiwuñu kenn rawatina staff bi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci campagne bi. wax dëgg fa yàlla bàyyi woon seen i yitte yëpp nekkoon ci te ñun ay saalum saalum lañ xam nañ ne ku ne xam na ne heure bi heure nawet la te ñu ci bari bàyyi woon nañ seen tool àndoon ak eh, liggéey bi nekk ci ba liggéey bi jeex kon wax dëgg fa yàlla mérito nañ sant duñu tudd tur bi bàyyi tur bi mais képp koo xam ne ci staff nga rek ñu ngi lay sant di la gërëm waaye nag am nag ñaar ñoo xamante ni tax ma leen di tudd ñoom ñoo fi nekkoon ancien APR ñu fekk leen fi te biñ leen fi fekkee yit wax dëgg fa yàlla amuñu benn buntu xatal boo xam def nañ ñu ko waaye dañoo joxe seen bopp ànd ak ñun cent pour cent muy Abdoulaye Traoré ak Ibrahima Diallo ak ñeneen ñi nga xam ñoom ñoo nekkoon seen i ginnaaw yëpp euh, comme staff bi ci des ñin ñoo àndoon ba ànd fekk leen kon donc suñu leen sante dafa naa ne euh, yoon la ñu ngi sant ñëpp daal te di gërëm ñëpp rek di ñaan ndam li yàlla nañu jig ak jàmm li ñu ci séentu wala li ñu ci bëgg yàlla nañu ko yàlla defal mooy lan mooy ñi liggéey ci département bu Koungheul waaye rawatina commune bu Fass Cekkeen bi nga xamante ne bëri nañ manquant lool donte la suñu wayjur mooy maire bi waaye xam nañ ne gàllankoor yi bëri na fa waaye du ci moom ndax lam mën mu ko ci def te ñun xam nañ ci dara kon donc ñu ngi tàllal loxo état bi commune Fass Cekkeen nañ ñu bàyyi xel nañ ñu bàyyi xel parce que commune bi tey boo fi duggee dëkk yu mag yi benn amul ci courant te yëpp a war a am courant yëpp ñoo war a am courant war nañ amit ay yoon lottu nañ ci communes yi bokk ci am yoon yi te xam nañ it kilifa gi def na ci lu nekk fëgg na bunt bu nekk ñoom ñi ko yor te di ko joxe nañ ci dimbale waa Fass ci kenn ñu am ay yoon am courant am ndox jigéen ñu sonn nañ forage yi tey bu ci paan pour mu dépanner problème la. loolu nag ñu ngi koy dénk président de la république ak ministre bi nga xam ne moo yor wàllu urbanisme mooy wàllu ndox mi ñu ngi leen koy bàyyiloo xel nañu bàyyi xel àll bi ndax àll bi itam élection yii wane na ne ñoom àll bi rek lañ dese comme àll bi lañ dese nañ jàppale àll bi. nañ jàppale àll bi bu baax a baax ndaw ñii tey di wax ne nañu wax ñoom itam man jàpp naa ne mën naa wax seeni i kàddu euh, mataar dëkk bi defar ko yomb na. man dama jàpp ne tey bu ñu jàppalee ndaw ñii kenn ku ci nekk am nga hectare boo xamante ni tey boo fa lëloo mois trois mois nga commencé am loo def sa poos faj say faj sa buumu gàcc na état bi jublu ci projet yooyu ndaw ñëpp mënuñ leen jox ay xëy fu ñu dem di xëy mais na ñu bàyyi xel ne ñi nga xam ne am nañ ay hectare ñu dimbale leen ñu am lu ñu bay nekk seen kër yore seen njaboot su am su luñ suturloo duñ dem ci kenn di tàllal loxo ñu ngi ciy tàllal loxo état bi mais ñu ngi koy ñu ngi ci tàllal loxo ministre agriculture mu bàyyi xel loolu waaw. taar ñeen ay ah, dëgg la opérateur lañ saalum saalum lañ mbayum gerte lañ xam mais pour le moment mbayum gerte dafa commencé sooxe aduna nag boo ci nekkee nga nekk ci benn benn étape nga dem ba gis ne mi ngi commencé sooxee bul nekk ca loola rek parce que bu sooxee rek nga dugg ci kàmbu mbayum noor laay wax man li tax ma ne nañ leen utal ay hectare ñu bay mooy mbayum dër yaa ngi fi mbayum noor baa ngi fi mun nañ am foo xam ne hectare boo xam ne deux hectares ñu def bay noor ak nawet bu nawetee gerte kii bu ñu amee semence ñu dem bayi nawet bi bu nooree ñu topp seen mbayum noor donc dina leen dimbale dana dimbale seen i njaboot te ndaw yi nekk commune Fass Cekkeen ndaw yu bëgg liggéey lañ ndaw yu bëgg lu ñu am lañ mais nag malheureusement wax dëgg fa yàlla mbir mi xaw na des tuuti ñu ngi tàllal loxo état bi mu jàppale ñu ci lu ñu man semence bi it nañu ko gën a bàyyi xel gën ko dolli engrais yi ñu gën ko dolli ndax jàpp naa ne man opérateur la mais man su ma sañoon CP yi ñuy joxe dañ koy bàyyi ñu jël engrais bi yóbbu ko ci béykat yi parce que béykat yi ñoo ko soxla te ñoom ñoo ko moom ñoom ñooy bay ku bay bari goo gerte ren engrais di jar saako vingt nangam mille donc nga am benn saak ci engrais état ba kooku pour nga am loo engrais du yomb ndax saako vingt cinq mille koo xam ne tey wax dëgg fa yàlla bu weer dee pour maanaam bu sa saako ceeb jeexee nga dang-dangi fu ne nga dugg pour am saako ceeb bu ñu la bëgg a jëndaloo engrais saako vingt nanga mille du sotti kon donc ñu ngi koy tàllal loxo mu gën ñoo bàyyi xel gën ñoo dimbale ndax saalum saalum yii nekk fii ay jàngoleen te saalum saalum ku ko xam-xam ko ci liggéey ku ko xam-xam ko ci ngoor kon nañ ñu jàppale bu baax a baax euh, ñu gën a développé zone bi nga xam ne ñun ñëpp moom lañ dëkkee ndax man tey man rek ma am amul njëriñ su ma amee damay sonn mais jàpp naa ne su ma amee kii am lu jàpp kii am lu jàpp man li ma am dana ñoŋ mais bu dee man rek damaa bëgg am li ma am du ñoŋ parce que ñeneen ñi ma topp maanaam ñi ma yaakaar ñëpp dañuy ñëw ci man di ma di soxla xëy na peut-être kon su boobaa man li ma am du ñoŋ kon donc lan mooy doxal affaire bi mooy nañ fexe ba ñëpp am ci luñ jàpp su defee rek kenn ku ci nekk la nga yor dina ñoŋ loolu rek moo xëy na peut-être euh, bu fekkee am na dara luñ ci fàtte rek ñu jegal ñi waaye daal bëgg nañ ñu ñu xel ndaw fas ca waaw bëgg nañu bàyyi ñu xel ndaw Fass Cekkeen bëgg nañu bàyyi ñu xel it ñi xanaa du jeexal sama kàddu te santuma gërëm ali yi nga xamante ni ñoo àndoon donte la waxoon naa leen ko xëy na peut-être heure bi xaw a jàmp ak xat-xat bi mais waxoon naa leen ko ban niñ dañ ñëw muy particulièrement maam Set Seck ak ñi mu àndal muy Omar Sall ak ñoom Pape Ndawiñ ñoom ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen xam nañ gis nañ seen taxawaay muy ñoom Pape Sy Ndour ñoom euh, ñoom ñëpp ñoom ñëpp daal su ma tuddee seere donc tudd naa ñoom ñëpp mais ñu ngi leen sant di leen gërëm élection yi lañ ko bëggee woon ak ñoom lañ ci waxoon nekk nañ ci jàpp nañ ci 100 pour cent donc li am ñun ñëpp lii gërëm nañ ko ndax doomu aadama yi wut rek nga am lay am yàlla suñu borom la lii yàlla def nii ci commune Fass Thiéckène rafetlu nañ ko parce que nit ki itam da ngay bëgg sa moroom bëgg ginnaaw boo bëggee da ngay may sa morom mu bëgg la nga la nga bëgg yàlla mooy choisir ak joxe ak yow nga dem joxe sa programme bu la nit ñu joxee nga nga sant yàlla bu la nit ñi jox nga sant yàlla kon donc sant nañ leen ñoom alliés yi bu baax a baax a baax a baax ci turu kilifa gi ci turu suñu jour waaye sant it commune Fass Thiéckène yëpp ndax lañ bëggoon moy dem ci commune ba tak radio wax ñep mais heure tool nek ñu nekk heure nek la ñu nekk bëgguñu bàyyi loon nit ñi seen yitté ak seen i yi ndax luñ ko bayi doyna sëkk ak barké moo tax ñu ko jaaré par site internet bi su ko défé mu tassaro ñu sant ñep gërëm assalamu alaykum wa rahmatullah euh, département assalamu alaykum région Kaffrine euh, alaykum commune Fass Cekkeen fi nga xamné fa samp fekk baax ma ngi leen di jaajeufal bu baax di leen contané di wax ne man la Fafa Mbaye bok ci commune fas Cekkeen yore won micro central ci campagne bi ñu nyop di sante ñëpp ndax campagne nañ ba campagne bi jeex amul xiro amul ngaay lo rek dafa doy sante yalla niko Mamoudou waxe rek non lañ koy waxe victoire bi mom yalla moy set kam koy jox jox nako ko muy elas Hadj nabubah ñu wituar bijik ñaanal bu baax yalla na victoire bi jik yalla na bi tam woyof si mom leneen la cey fas moy message bi mom direct ci president la bëgg mu dem moy ndawu sonn nañ ci parti bi ndax koo fi gis tey père famille la mu bàyyi yitteem euh, sacrifice boppam ngir parti bi ngir Benno Bokk Yaakaar kon nañu bàyyi xel ndaw commune Fass Cekkeen jàppuñu si dara amul benn ndaw boo xam ne tey yaa ngi jàpp tey loo xamante ni si état la bàyyee ko loolu moom moom dama koy lancer spécial nañu ko bàyyi xel ak côté bu mën a doon muy projet yeeg financement yeeg lu mën a doon ak xëyu ndaw yi nañ ci jàppale commune Fass ca Kañ ñi gis ci seen bopp di si jàppale itam département Koungheul ñu gis ci seen bopp parce que ñun amuñ lenn lu dut suñu tool yi mais dañoo bàyyi suñu tool yi ngir soxlaay Macky Sall bàyyi suñu tool yi ngir jaamu Macky Sall suñ ko jaamoon nag ba lam soxla woon mu am ko na bàyyi xel réseau Kaffrine bàyyi xel département Koungheul bàyyi xel commune Fass ca xam na ñun kenn ñoruñu ku du jëmm ji ñuy tànnal ñu muy El Hadj Mohamed leen di jaajëfal bu baax di leen kontaane jërëgéen jëf